ñoo ëpp gouvernement bi dafay daal di démissionné loole nag constitution bu Sénégal moo leen ko mayee article 86 alinéa 5 yéen gi ne na coalition Askan Wi ñoo ngi teg pression bu mat sëkk ci ñi nga xam ne ñooy gouvernement bi yéen i kaay gi nag nee na bu ñu waxantee dëgg ñi nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi maanaam dinañu am ay jafe-jafe yu mat sëkk ngir nag motion de censure bi daal di jàll ndax nag am nañu ñaari député Yewwi Askan Wi yoo xam ne jamono ji teg nañu leen loxo yéen i kaay gi nga xam ne ñooy waa coalition wàllu ki nga xam ne mooy Amadou Ba yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na mbir moomee dafa leer ndax ñi nga xam ne ñu waa coalition Yewwi Askan Wi change yi nga ne am nañu ko ngir nag motion de censure bi daal di jàll gouvernement bi daal di nërmeelu loolee lu tuuti la loolee lu tuuti la yéen kaay gi di enquête nee na nag ñàkk booloo gi nga xam ne moo am ci biir opposition bi lu leen dal moo leen ko tek moo tax motion de censure bi maanaam jàll moom boo muy tuulee du ko def de yéen kaay gi di nee na nag lu toll ci juróom benn motion de censure moo nekk nii ci histoire politique bu Sénégal waaye nag ñi waa PDS nee ma waa coalition wàllu Sénégal ñoom nag nee nañu ànduñu ci motion de censure bi ndax nag dañu leen see boolewula maanaam boole wuñu leen ci mbir mi impliqué wuñu leen si te nag dañu leen see waroon a impliqué moo tax waa parti démocrate du ñoom nee nañu duñu voté li nga xam ne mooy motion de censure bi ndax nag si mujjantal gi sax lañ leen ko yëgal te nag loolee manque de respect la jamono ji Amadou Ba bu ko neexee dégg ni ko ba tey ci biir yéen kaay di Rewmi Quotidien démb coalition Yewwi Askan Wi ñoom Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall ak Déthié Fall doon nañu janoo ak taskatu xabaar yi Ousmane Sonko nee na Macky Sall jamono bëgg manipuler nga xam ne mooy justice bi ngir nag teg Barthélémy Dias ay daan ngir nag nangu nga xam ne mooy mairie bu Ndakaaru ci ay loxoom waaye tamit nangu député bi nga xam ne département bu Dakar ñoo ko ko waaye nag loolee dañ si na suule na jëm ci wàllum politique waaye nag manifestation yi nga xam ne moom lañ fi doon amal léegi tey ñu commencé waat ko ak concert de casserole yi yéen a kaay fo moom njiitul Pastef nee na Macky Sall mi xamul il faut que ñu jàmmarloo ak moom dem ba ka ndax Macky Sall bu mat moom la ñuy te nag loolee mënatuñu koo nangoo yéen a kaay gi di Sud Quotidien Khalifa Ababacar moom nag ñaawlu bu baax baax ñaari député yi nga xam Sénégal jëm baaxul lii xañ ci réew mi neexu la yéen a kaay gi di 24 heures moom njiitul Pastef di Ousmane Sonko daan nay wax ne Macky Sall nag jamono ji haute trahison la def ci réew mi ndax nag Macky Sall bi mu jotee ci li nga xam ne mooy rappor interne bu gendarmerie dafa waroon a wax procureur mbir mi teg leen ko ci suufa waaye nag lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi nga xam ne Macky Sall ma ngi ciy wax loole nag provocation la te nag Macky Sall bu ñu wax dëgg maanaam yàq na deru Sénégal image bu Sénégal Macky Sall yàq na ko ci bitim réew yéen a kaay gi de Le Quotidien yor yor nee na nag jëm ci mbiri Ousmane Sonko ak Sara réquisition bi nga xam ne division cybercriminalité def nañ ko ci lu jëm ci wàllum téléphone yi loola nag firndeel na na Mamour moo nekk ci biir complot bi yéen kaay gi di évidence nee na yi nga xam ne Adji Sarr wax na ko audio nag maanaam bu génnee réew toj ma la audio la yoo xamante ni maara tale dina andi jafe-jafe yu rëy mën a la ci régime mu Macky Sall bi yéen kaay gi de la Tribune nee na élection présidentielle 2024 ñi nga xam ne a a jengante bi nga xam ne moom la ñu nekkee ak nag lu jëm ci wàllum calcul politique yi loolee opposition bi ñoom ñoo ko war teg ci suuf élection présidentielle 2024 daa di booloo mën a jàmmarloo ak Macky Sall yéen a kaay gi di réew ko di cee nee na jafe-jafe amatina ci lu jëm ci wàllum wér yaram gi ndax nag mbootaay gi nga xam ne moo ëmb syndicat yi ci wàllum wér yaram gi nee na fédération des de la santé ñoom nag dinañu amal xam ne mooy mafia bi am na lu toll si juróom-ñaar ñoo xam ne teg nañu leen loxo waaye nag benn jigéen boo xam ne juriste la nekk sa ASEPEX moom ci boppam mooy cerveau bi maanaam mooy nday mbi liggéey yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na li nga xam ne moo am ci réew mi doy na waar Birahim Seck bu Forum Civil moom nag nee na jamono ji jot na sëkk Macky Sall daal di réagir Macky Sall munta ñàkk a wax Macky Sall munta ñàkk a wax ci rapport Cour des comptes bi nga xamante ni mën nañu koo jàppe massacre financier maanaam li nga xam ne moom la ñu saax-saaxee alalu réew mi ci nag rapport bi Cour des comptes mënu see ñàkk wax jamono ji nga xamante ni nag ci jamonoy coronavirus bi jamono ji ñuy torturer askanu Sénégal ci mbedd mi di leen di toroxal ci mbedd mi ak nag di leen di confiner mën la confinement bi mel ni tulleeg ma le waaye stress bi nga xam ne askanu Sénégal ñoo ngi ko doon dund ci coronavirus bi ak jamono joojee ndekk ay agent de l'État ñoom ñoo ngi koy sàcc ñoo ngi koy détourner impunité bi nga xam ne moo am ci réew mi dafa doy sëkk wax Ibrahima sek la du suñuy kàddu dañuy nettale moo tax jamono ji Macky Sall munta ñàkk réagir Macky nag lii moo am Macky nag day réagir munta Bachir ñu jàpp ne complice la ci mbir mi yéen kaay gi di libération xëy di ñu xibaar naan ñu en tout cas agence la gestion du patrimoine bâti de l'État ñoom manque nañ lu toll ci fukk ak juróom ñaar ci ay milliards ci fonds Covid 19 bi yéen kaay gi la témoin nee na ministère développement bi nga xam ne jamono joojee Mansour Faye moo ko jiite woon ñoom nag tuumal nañ leen ci lu jëm ci wàllum surfacturation yoo xamante ni mbir ma doy na waar lool waaye ñenn nag du waa ministère na la gis am na benn marché masque boo xam ne la ca xew Amadou Ñangom mi nga xam ne moo nekk daas bu ministère des sports moom tim tudd nañ ko ci mbir mi yéen kaay gi de la quotidien yor yor nee na fond covid 19 bi lu ëpp benn milliard lu ëpp benn milliard la ministère de la communication dépensé te andiwu benn justification ma ne la jamonoy Ablaye Diop ministère de la communication ëpp na benn milliard jël na ko def ci dépense laaj nañ ko na ko yow fan ak fan fan moom nga dépensé waaye ba léegi amul benn firnde boo xam ne Abdoulaye Diop andi na ko ci mbir moomee yéen kaay gi de sarxëy di ñu xibaar naan ñu coupe